di la delloo ziar mbaa Mbour a ngi bëri euh, jën. waaw Mbour sant rek. ah. Sénégal moom jën géej yëpp jaay nañ. <laughs> ah dit waay. Ah, hmm. bi. Hmm. ndax yàlla may nañu dox géej may ñu suuf may ñu naaj. Hmm. waaye gis nga. daanaka jën boo laal fii nii yaa booy sax ay téeméer lañ lay wax gis. mille hmm? loolu dina doy waar rek. Sénégal jëm ca laa léegi yow euh, ci euh, meeting investiture bi nga xam ni waa. Euh, Pastef bëggoon nañ koo amal ci weekend bi ak yeneen xeeti manifester ñu bëggoon na def ci Ndakaaru Njaay Jal Jóob yëpp gouverneur bu Dakar génnee communiqué ne lépp li nga xamante ne xeetu manifester la ci biir ndakaar moom ayee na ko kon meeting boobu léegi nga xamante ne waa parti Pastef ñoo ngi ko doon waaj ay fana ngi euh, malheureusement du am loolu lan la mën a jur déjà pour parti bi ak ci ñi nga xamante ni ñoo koy topp. d'ailleurs ci monsieur président Macky Sall xanaa tag la rek day jottali rek waaye ka ka ka wax loola kenn kenn la muy Macky kenn kese la muy Macky Sall xam nga ne depuis deux mille douze ba léegi Sénégal yoru état yoru gouvernement ñun yoruñu état yoruñu gouvernement amul lu ñor Hmm. ay jaaykati doole di def lu leen neex te kenn du leen wax dara waaye ñu ñëruñu état ndax lii sénégalais bu ne hmm. fekkee am nga xel hmm. di jàngat di xalaat bu baax xam nga ne suñu réew mi droit amu fi état amu fi ay jaaykati doole ñoo fi nekk moo tax gis nga lii préfet wax nii damay wax Macky Sall bu yàggu daa taxaw ne troisième mandat du ma ko def mhm. loolu gëm gëmu ko sax wax jooju da ko waxee gëmu ko déjà ak sénégalais yi moom pour moom mën naa yóbbuwaat réew mi ci ak kaaw ay fitna bu ko defee mu ne dafay toogaa ñaari at wala dafay toogaa ba daal te maa ngi koy ci yàlla ne kàmb gi ñu ko gasaloon dugg na ci xam nga bu ñu nee troisième mandat moo rafet lay dugg ci kàmb moom jàpp na mi moom mi ngi ci biti te fekk mi ngi ci biir kàmb bi li koy suul nag bu moytuwul. Hmm. dana ci àgg. na def tar attention moom Macky Sall gis nga nit dangay ngay nitee dix-sept millions sénégalais mënoo cee nekk benn nit bëgg na yaay buur yaay buum bi surtout jamono ji ñu nekk deux mille vingt trois nit ñëpp kenn ku ne am sa xel di xalaat xam li xew ci àdduna yow nga nekk benn simple nit bëgg na yow Sénégal yaa koy yor lu la neexee di def lu la neex di boote guum kenn du dox dara te li ngay def lépp ay journaliste yi nekk Sénégal ñoo xam ne nii ñuy nawloo yaakaar di ñii ëllëg bu Sénégal nekk jafe-jafe ñooy taxaw pour xeexal Sénégal ñooy ñëpp ñu ci ginnaawam fii nii pour jàppale ko ci salbulo yi muy def heureusement li olof naan yàlla du tëj buntu tëj palanteer wàcce rido mhm. ndax yéen yéen a ngi fi ay ndaw ngeen ay seeni ndaw ngeen waaye man doo mën sax ay seeni ndaw ngeen léegi man ndax Sénégal yëpp yéen lañu seetaan mhm. kon dalay war na maanaam saa yu bëggee def lu bon wala ñu jéem koo ànd koo ay journaliste yoo xam ne daanaka lañ jàngoon lépp wanaasu nañ ko ci ba ci ci ci baadoo la maanaam seen seen lañ jàngoon ak lañ xamoon lépp def nañ ko ak deret léegi di ko naanu Sénégalais yi ànd kooku Macky Sall ñooñu nag bu ñu yaakaaree ne dañu ànd ak mag Sall à chaque fois bu ñu xëyee suba di génn seen euh, seen i information yoo xam ne nii dara amu ci. Mhm. di gëmloo Macky Sall wan na ko maanaam Ousmane Sonko wala keneen ak keneen mën ngaa nekk ci réew yi def lu la leer te du mujj fenn mi ngi nax boppam. Mhm. te na def très attention ci ñi ko wër Macky Sall na xam ne maanaam ba ci takk der yi ko ji yi ko yi ko jege di ko garde hmm. na def très attention. ah li nga wax doy na war de. takk der leer naa la wax. Hmm. maanaam nit day toll foo xam ne gis nga am réew boo ko boo nekkee boo naree toroxal Sénégal yi. Hmm. nit ñi duñ ko seetaan na bàyyi yi muy def. d'accord gis nga am réew buñ la ko dénkee da ngay nekk nit nga nite. ëppoo fi kenn jàng ëppoo fi kenn xam-xam. kon nag nit ñi duñ la seetaan ngay taal réew mi wala ngay indi fitna ci réew mi. Mhm. réew mi réewum Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. nit ñi duñ ko seetaan nag Macky Sall nekk ci bëgg a taal Sénégal ñun mhm. li xewoon bër ci démb dafa doy sëkk Sénégal. boo ci bëggee dolliwaat leneen nit ñi duñ la seetaan. effectivement te bër ci démb Moussa Fall junj na ko. wax na ko na ko comme Sénégal yi liñ bëgg. sooy boo jéem koo def muy lan indi réew mi ci jàmm ak salaam ak dal. Ousmane Sonko mii li mu yéene ci moom moom moo koy dal. Mhm. moom Mbassouk Macky mooy parteem bi tas APR ci bopp mooy tas. seey mhm. kenn ku ko gisati APR daanaka mën nga ne ay fan a ko des. Ah, ah ma am am na ñu a bind message bi gën a suuxee ci Sénégal mooy bi mhm. baax amul ku ko téye. ñoom kenn lañ jël kenn kooku nee na leen man bokkatuma. ñu bokk maanaam xamul mu nekk fa bëgg a buur bëgg a bulli bëgg ne man lii laa li ma dogal. Mhm. parti boo xam ne yow kenn nit moo fay dogal loolu parti la. ah, ah loolu du parti. tey bi mhm. tey fekkoon maanaam Macky Sall leer ko parti bii moom ñoom affaire ñëpp a lii muy def ni du ko def ay kaw ay congrès. Mhm. waxtaan seen biir bañ déggoo. ñu buñ ne kii lañ tànn ñu jël kooku waaye koo xam ne kenn nit mooy tànnal boppam loolu parti la. Ah. nañ bàyyi suñ caaxaan yi ñun buñ bëggee suñ réew mi dox nekk ci jàmm ak salaam mhm. Mhm. dañuy waxante dëgg mhm. te bañ a raay raayal wax ji wax kenn du ko raay raayal gis nga dëgg da koy wax gis nga nga wax ko da ngay faatu nga wax ko da nga bañ ko wax da ngay faatu gis nit ñi yenn saa yi li ñuy sikki sàkk ak li ñuy ragal dafay jeex gis nga fii nga not noppi jàpp sa bopp nekk sa liggéey yàgg yàgg da ngay nga nekk ci di waxal sam réew di xeexal yàgg yàgg dangay faatu kon nag booy mhm. xeex xeexal booy faatu faatut ci dëgg. effectivement loolu dafa am solo gis nga nit yàlla indi ñu pour ñu lay toog di xoole nii rek loolu nit ñi dañ ko war a xam investir bi waa Ousmane Sonko bëgg a def le quinze yow doo fekk koo xam ne nii bu doon Sénégal bu doon téeméeri juróom-ñeent fukk yëpp ci ginnaaw moo la fi ëpp dayoo fop ëpp la fi personnalité fop ndaw ñeeg xale yeeg yi ñëpp nekk ci ginnaaw mhm. mu ne dañ dañ ko investir nga ne loolu du am loolu da ngay nax sa bopp rek. ah fitna nga bëgg indi rek. waa waa waaw léegi léegi léegi léegi léegi kon yow loolu loo jàpp ne moo war a nekk euh, solution bi par rapport à ça ndax euh, waa waa waa Pastef ci euh, xibaar yi nga xamante ne jotagum nañ ko ñoom seen programme nañu ko tëralee woon du ñu ko coppi benn yoon meeting bi nga xamante ne moom lañ bëggoon organiser jamono ji toll nag ba léegi xanaa ñu xaar suñ ko wax waaye lu ko mooy itam ca dat bañ ko jàppe woon dinañ ko daal di def ndax loolu suñ ca demee itam mënul jur leneen buñ ci demee lu mën di jur responsable bi premier responsable Macky la mhm. ndax xam nga tax ma loolu Macky Sall ëppalewul Ousmane Sonko ci réew man ñi sa ëppalewu ma fi dara mhm. yow moom ëppalewul fi dara sénégalais nga muy sénégalais mhm. sénégalais yi ñoo ko wóole woon fal man mandat jeex na léegi amul droit di tànnal kenn sénégalais yi surtout koo xam ne nii ndaw ñi dañoo am yaakaar ci moom am espoir ci moom depuis ñetti at ñeenti at wala juróom-ñeenti at da nit ñi di ko déglu di ko bàyyi xel. Hmm. dem ba yaakaar ne kii maanaam kii bu ñëwee man na soppi Sénégal ak Sénégal fi mu toll ak métti yi ni ak dund gi dund gi ni mu méttee. Hmm. ku mel moo la gën a yaa gën a moo Macky Sall moo la gën a xam ne ndaw ñi duñ bàyyi kooku ma koy saagaagal loolu ma koy indil benn jafe-jafe. ndax ci hmm. alxuraan du du am. mënut a nekk Macky Sall lii muy jëm nii moom moo ciy dugg ci kàmb gi moo cay maanaam am lu ko ci naqari waaye mënu cee def. mënut a indil Ousmane Sonko benn jafe-jafe. Mhm. li gënoon ci moom mooy moo continuer rafetalam bi muy jéem a def jéem a jeexal mandaam bi ci jàmm ak salaam dem bàyyi Sénégal. Ah, Sénégal moom bu moonte def moom kay moom kay def wala. jéem ko de. wala da nga jàpp am loo xamante ne da koy wax nii rek jëfewu ko. déggoo ne ma laa bi may doog di wax nee naa troisième bi mu génne wax ko nii gëmu ko. Mhm. ndax tàgguwu ci kenn soxnaam sax dégg yowu léegi. léegi yow xam bi ngay wax sa soxna yow yëgu ko yow loolu loolu loolu loo ko mën a jàngate ñaareel ba li ma ciy dolliwaat mooy gis nga al al euh, muy préfet Dakar bi. gouverneur. gouverneur Dakar. Al Assane Sall la respecté Al Assane la respecté sénégalais yi sénégalais la comme ñëpp te gis nga fii loo fi def tey boo yaakaar ne bu subaa da ngay lay dañ lay bàyyi mu set da ngay nax sa bopp ki démb. bi Macky Sall ne troisième mandat du ma ko def. Mhm. ñaata mbooloo lañu ñu woote buntu pale ñu ne dañu sargal dañu sargal euh, Macky Sall. Mhm. ah ñu dem ba buntu pale day sargal Macky Sall doon tam mbooloo ma sax bëriwul doon ndax kenn ko ña fa nekkoon daanaka mooy ñi nga xam ne dañoo jaay seen ngor rek boobu dara ñu def lu leen neex léegi nag après bu ñu nee Ousmane Sonko wala ku far Pastef da ngaa bëggoon def lu mën a teew ëpp kooku ëpp ci dëkk bi. ëpp la personnalité ci dëkk bi ëpp la ay cofeer dëkk bi ëpp la lépp ci dëkk bi mm-hmm. nga ne ko yow dëkk bii nga xam ne am bi ëppale lépp doo fi def dara loolu xel na koo nal ah ah, ah xam na loo ne maanaam nit yenn saa yaay toog ca waxtaan sa njegenaay xam lu mën a nekk ak lu mënta nekk mm-hmm. Macky Sall daa war a xam ne Sonko nii du affaire nit affaire yàlla la Sonko nee naa Macky Sall waroon na cee gëm yàlla gën cee ci ragal yàlla. Mhm. ak Sénégal yépp ndax mbir mi du mbirum doomu aadama mbirum yàlla la may Sonko ku xamul rek moo koy indil ay jafe-jafe ak da ko indil ay tolof tolof. Mhm. waaye xamal ne yàlla moo nekk ci ginnaawam. d'accord ñaata ñaata politicien lañ faa bëggoon a faagaagal ci loo xam ne sax presque ay ay quelques jours. Macky Sall fi ñu tey beneen opposant bu mu bëgg a faagaagal fii bu ko neexee vingt quatre heures mu la lim lay def mel ni Ousmane Sonko la ci mun dara ba léegi te du ci man dara ba a Saba mhm. nañ delloo ci seen xel. d'accord respecté Sénégal yi. merci bu ñu taal suñu réew mii. Mhm. Sénégal bu ñu ko yàq bu ñu ko taal. jaajëf kontaan ci yow bu baax a baax. ok merci beaucoup. merci merci euh, di la kontaane di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 ban jàngat la ñuy def par rapport à la situation du pays actuel wax naa leen du lundi au vendredi nag vendredi mooy euh, bis bi nga xamante ne dañuy tënk lépp li nga xamante ne actualité la euh, amee ci